إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد mbokk jullit yi gannaaw ba ñu sante suñu boroom mi jaam bi war a sax di ko sant ak lum mën a nekkee ñu ngi seede na yàlla dong yeyoo ñu koy jaam amul kenn kuñ ko war a bokkaaleel ñu seede na yonent yàlla muhammad mooy jaamam yonent bi mu yónni woon ci ñun ci moom dong lañu war a jëli naka la ñuy jaamoo suñu boroom ñu ngi leen di dénk ngeen ragal yàlla ku nekk ci yéen di fàttaliku lan mooy jubluwaayu yàlla indi ko ci kaw suuf ana ban taxawaay moom la war a taxaw doonte ne ni tey jii ñi ngi ñëwoon di fàttali la nga xam ne mooy njëlbeenu dund googee di ak ndaw loolee ñel ndaw ña directement waaye ñeelit way jur ya nga xam ne ñoom ñooy saytu ndaw yooyee di leen teg ci aw yoon nga la way xam leen ni bépp société bu la gën ay ndaw moo la ëpp avenir ndaw ñooñee ñoo mën a yëkkati la nga xam ne mooy seen réew ak seen société bu ñu baaxee it ñoo mën a taxawal seen diine dooleel ko ndax suñu borom yàlla subhanahu wa taala lam def ci ñoom ci kattan ak ci xalaat yoo xam ne ñoo ca gën a gaaw fuuf mag ña doonte na mag ña ñoo leen ëpp la nga xamee ne nii moom la ñu tuddee expérience suñu borom yàlla subhanahu wa taala mu ne xam leen ne maa ngi leen bind ngeen doon ñu néew doole gannaaw ba ma ñëw may leen kattan waaye kattan googu du sax de balaa yàgg rek néew doole ñëwaat xoolal sa maam ji di sukkootu di ñëw xoolal la nga xam ne ca gannaaw tëb yi ngay tëb moo la ko dàqoon daw yi ngay daw moo la ko dàqoon waaye tey mënatu ko yàlla nag lu ci bëri dana leen may xam-xamu ñuy rëccu ay waay bu ñu mënoon a dékki ndaw loolu tax mu am benn lépp bu tubaab yi lépp naan ah si jeunesse savait si vieillesse pouvait cay waay bu doon ndaw xam nañu la mag ña xam waaye cay bu doon mag ñi mënati nañ léegi la ndaw ñi man loolu nag yow ndaw mi xam loolu nga la waay góorgóorlu nga xalaat bala ngaa yegg fa la fa nga xam ne sa maam ji fa la yegg yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam su nañu ne dañu daan dénk ne ittewoo leen ndaw ñi man dey ba ma yàlla yónni ci diina ju tedd ju màgg ji ay ndaw rek ñoo daw daa di ñëw wursi ma magi dëkk bi yépp lañ maa weddi sallallahu alayhi wa sallam mbooloo moom jiite woon moo leen magoon ñoom ñëpp ca 40 ans la amoon la ëppoon ca mbooloo ma ñi ngi nekk diggante 15 ans 30 ans ñu néew ñoo ca passé woon 30 ans ñooñu mbokk ñoo fondement da'wa bi dooleel yonent bi ba diine l'islam yegg fu mu yegg tey ay ndaw ñoo ko fa yóbbu ndaw yooyu nga xam ne amuñu naafiq liñ gëm dañ koy joxe ba mu jeex tàkk ndaw ñooñee mbokk jullit benn kattan la boo xam ne fokk dañoo war a laaj ñu leen di orienté pour loolu fuñ koy jëmi bokk na lu ñuy gën a xiir ci suñu xutba tey bi semaine bii lii nga xam ne mooy ndawi Sénégal ñi ngi dund ñaari mbir yu yéeme benn mbir mi mooy ñee nga xam ne ñoo dem topp football ba nee nañu gañe nañu a gañe goo xam ne nii dana leen qualifié ñaata lañ gañe ñu ne dóor nañ fa 2-0 na am waaye mbokk ci fan yooyu nga xam ne différence bi daanaka ñaari fan la la am beneen équipe bu Sénégal boo xam ne ña nga fële ca Gambie ngir aar suñu frontière aar suñu économie aar suñu sécurité réew ñooñu it ña nga doon xeex ak ña nga xam ne ñooy saay saay sa ba yàlla dogal ñu daañal fa ñaar ci ñoom jàpp fa juróom ñeenti soldat ba fii may waxe ak ñoom ña nga ci loxo rebelle yi loolee mbokk ña ca daanu yal na yàlla jéggal leen yal na yàlla defal leen àddina seen wàccuwaay ñan ca jàpp ak fu ñu mën a nekk yal na yàlla sàmm leen delloo leen seen réew xoolal ñaari extrémité yi ñee ña ngay dóor ay balu kawshi di recevoir des balu kawshi ñee di dóor ay bal réel muy dal seen kaw ñuy daanu ca xamoo ñaata blessé ñoo ca nekk à part ñooñu dee ak ñooñu ñu jàpp loolu it moo tax ba yow ndawu julit toujours da ngay xool sa taxawaay mooy lan sa taxawaay nga la waay góorgóorlul xam ne alxuraan day wan na la ay yoon ca ña nga xam ne ñooy say royukaay c'est pas ay footballeur ay basketteur ay ay ñu kenn xamul ñoom ngeen war a jël def leen ay royukaay ñi nga am ay milliards léeg-léeg seytaana taaral ko ñu naan ñi ngi def nangam ak nangam seen dëkk ñooñu duñ seen royukaay loolu am palo dañ ko def pour distraire le monde c'est des milliards et des milliards de dollars yoo xam ni kenn mënu ko wax sax ci wolof pour distraire le monde ba Occident jiite àdduna bi ngal la wax yéen ndaw ñi yeewu leen ci loolu xam leen lan mooy seen taxawaay téere bii nga xam ne moom la ñu yàlla yónnee ngir mu jubal ñu te moom la ñuy yàlla laaj ëllëg wan nañu ci ne ñim yónni woon ngir ñu redressé àdduna bi ñépp ay ndaw la ñu woon mu am ku ñu royukaay bu mu ñu jox mi ibrahima alayhi salaam bi muy nekkee ci digg jeunesse am la dem déclaré waa réewam ne leen xërëm yi ngeen di jaamu day musiba la alkaanga la ca baayam ba la jëkke woon ca man day danaa leen fexeel dem màbb seen xërëm yépp ba ñëwee lu ñu wax déggoon nañ benn jeune day bu leen doon dénoncé ñu koy wax Ibrahim ca may koo xam ne passegul quarante ans Ibrahima taxaw défier xeytam taxaw taxaw ci dëgg mboolem dëkk bi ñépp weddi ko waaye teewul wéetaay googee dérangé wu ko ba waa dëkk ba jàpp ko ne dañu koy rey dañu koy taal yàlla subhanahu wa taala musal ko génn ko kenn gëm ko muy luut suñu borom yàlla def ko misaal ñeel ñi ñëw ba ilaa yumi diin ngal la yow ndawal julit xamal ne sa priorité ci sa àdduna mooy nooy def ba saxal wéetal yàlla jàlla wa ala déggal yàlla jàlla wa ala daa di noonoog lépp loo xamee ni nii kéeféer la mbon la loolee la la ibrahim alayhi salaatu wasalaam xàllal yoon woowee ñu war cee bàyyi xel mbokk beneen ndaw mi ngi nii di yonent yàlla yuusufa alayhi salaam yuusufa moomee nga xam ne yàlla subhanahu wa taala nattoo woon na ko ñu jàpp ko yóbbu ko ci benn kër premier ministre bu Égypte soxna sa fa nekk taaru woon lool amul musul am doom daa di woo yuusufa ca la nga xam ne mooy ak njaaloo waaye yuusufa alayhi salaam ne ko déedéet xam leen ni sa borom kër mooy sama kilifa ca yëpp tooñkat du nekk mukk kuy texe laa yuflihu zalimun kon njaaloo googu duma ci dugg mukk et pourtant yuusufa day lépp luy woote ci njaaloo daje woon na ci moom bu dee ndaw la ndaw la woon yorul woon soxna ab sangam moo ko woo di jaam tey ji ñu bëri jàpp nañ ne seen général wala seen patron wala seen kañuy liggéeyal lu mu wax dañ ko war a def nekkoon ne étranger ci dëkk bi kenn bokk fee kenn kon loolee njaaloo mën na ko yomb waaye mu ne déedéet tooñkat du texe loolu it muy yow ndawal julit xamal ne sa borom yàlla dana la nattu niñ koy waxe lu bari néew na tey xale bu góor buy sol dàllam dem fekk xale bu jigéen xale yu jigéen yi ñooy sol seen dàll dem fekk xale yu góor yi loolee ay natt loolu leen yàlla nattu waaye mboytu leen njaaloo seen kemtalaal kattan moytu leen njaaloo yàlla bëgg ko alkaage da caa nekk xutba paase na lu yàggul dara di wax ci loole yusuf alayhi salaam soxna si menacé ko ne ko kat mi ngi nii su deful li may wax ci kanamu mboole mi aristocrate jigéen ñi nekk biir Égypte danaa ko fexeel bañ tëj ko ci kaso bi waaye yusuf ne ay sama boroom dem tëdd kaso moo ma gënal def lii nga xam ne dañ ma caawoo jëmi ay yow ndawal julit yóbbaaleel loolu nga sax ci dëgg sax ci justice bañ tëj la kaso na la gënal nga jeng bay def loo xam ne lu jaaduwul ngal la waay kooku mooy contraire ka nga xam ne daa agressé bañ tëj ko kaso contraire ka lekk kees bañ tëj ko kaso amma yusufa dañ koo woo ci bànneex loolee mu ne dem tëdd ko sa moom a ko gënal yàlla natt ko juróom ñaari atu kaso yuusufa tëdd na ko ngir lan ngir daw njaaloo lan la ko yàlla fay yàlla faye ko mu yor mboolemu a doxal la nga xam ne mooy Égypte mboole seen yow ndawal julit kooku sa royukaay la waa war a bàyyi xel ci heure boo nekkee ci kanamu fitnay alal fitnay jigéen fitnay politique fitnay lu mën a doon ci fitna yi fàttalikul ni ak tooñ bu ca nekkee doo texe ci lépp loo bàyyi ci yàlla tax lu metti metti metti bala ngaa dee da nga gis résultat ba yàlla fay la ko ci àdduna avant alaxira yonent yàlla Muusa ngi nii di ndaw bu yàlla joxe ko misaal ñu yar ko ci pale firawna firawna jàpp ko comme doomam ña nga xam ne ñooy notable firawna nekkoon seen aada bundu xotaal juif bani israil yi Muusa bam ca màggee daa génn taxaw ci kanamu dëgg képp ku nekk ci tooñ mu dal sa kaw képp ku ñu néewal doole mu jëmbili la loolee ba tax ba am koo xam ne nii séen na ko fekk am na ko koy néewal doole mu ne ko ay Muusa kaay dimbali ma dimbali gan ko doon dimbali ca la ko yàlla nattoo ba mu rey ca bakkan loolee jural na ko mu génn Égypte dix ans mu tumurank ko ci àll bi di sàmm lan moo ko yóbbu Moussa mooy taxawal justice ci kaw suuf taxawal maandute dàq toon ci kaw suuf ay yow ndawal julit melal noonu bu la kenn yóbbu ci noonu goo xam ne ay bakkan da cee rot noonu goo xam ne day teqale waaye taxawal li la yàlla may ci kattan yépp ngiree dëgg taxaw ci kaw suuf ngiree tooñ génn ci kaw suuf lii rek moo taxoon Moussa daj coono yooyu mu daj yépp lan lan moo ci mujj lan la ko yàlla fay yàlla tànn ko def ko yonent bi yàlla mbokk la nga xamee ni nii mooy misaal yi ñu yàlla wax ci téeréem bi bokk na ca ñi nga xam ne nii ñooy asxaabul kahfi ay ndaw ñi nekkoon ci benn société société bi yépp dëppoo di jaamu xërëm waaye ñoom ñu ne yàlla mooy suñu boroom duñ ko bokkaale mukk buñ ko waxee wax nañ njombe nañ daw génn société bi làqu ju ca montagne ya ngiree mucc seen pexe suñu borom yàlla wàcc ci ñoom karaama karaama ga mooy lan nelawloo leen ñetti téeméeri at gannaaw ba dekkal leen ñu nekk kawtéef ñu leen di jàng ba ila yawmi din di asxaabul kahfi loolee lan la ñu jàngal ngal la waaye ndawal julit fexeel ànd ak ku baax suñu borom nee na juróom-ñaar la ñu woon ca société ba fexeel ba booy tànn xarit tànn ko ànd ak ku baax di toog ku baax ngiree seeni xalaat di dëppoo ci lu baax loolee la borom bi yàlla jalla wa ala wax ne ñoom ay ndaw lañu woon ban jógee yàlla moo leen dolli njub daal di dëgëral la nga xam ne mooy seen xol ya ban message la ci ndawal jullit mën a jëlee société boo mën a doon am nañu lu ñuy xewal am yu ñuy sos waaye nga la wayu ndawal jullit xamal lan mooy priorité des priorités mooy man dama ñëw nekk jaamu bi yàlla ci kaw suuf sama jubluwaay bi gën a rëy naka laay def ba sama borom gërëm ma leneen lu cay topp doog caa topp te wallahi mbokk bu la sa borom gërëmee xamal ne su dund dana tedd adduna avant alaxira leneen lu mën a doon njàng beeg liggéey beeg tukki beeg yooyu yëpp na nekk secondaire ci ndawal julit waaye sa priorité mooy lan mooy naka laay def ba am ngërëmal yàlla jalla wa ala lii boo ci réussir réussir nga ci lépp boo ko sàgganee topp àdduna loo mën a am ci diplôme ci alal ci nguur ci pal réccoog toroxtaange donga moo cee mucc ay yow ndawal julit bàyyil xel ci ne la nga xam ne suñu diine diine yi daf ñoo won ay ndaw ñoo xam ne ñoo xeex ba mbir mi yegg si fii ña nga xamee ne nii ñoo ci jiitu woon kii nga xam ne mooy Zayd ibnul Harisa nañu xam ni moog jaafar ak kii di abdullah ibnu rawaha suñu yonente alayhi salaatu wasalaam yónni na leen ñu jëkk a défier la nga xam ne mooy empire Rome di Europe ak lu bari ci Occident loolee ngir lan mooy la gën ci attaqué li gën ci éviter guerre mooy fexe ba yow jëkk attaqué loolu moo taxoon ba waa Rome ñëw ñu Madina ñoom ñetti ñooñee ñu daal di fay daanu daanu ba gën a rafet ci daanuwaay yi mi ngi noonu kii di Zayd kii di Jaafar kii di Abdullah ibnu Rawaha waaye mbokk bañ jógee ci loolu itamit xamal ne yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam bu ñu delloo ci wàllu taxawaay drapeau bi mu mujj yëkkati jox ko nit na ko demal jihaad ci yoonu yàlla mi ngi ko teg ci loxo Usaama doomu Zayd nga xam ne bàyyam ma nga daanoon ca Mu'tata ca Romain ya moom la jox Usaama armée ba Aboubacar ma nga ci woon Omar mi ngi ci woon ñu war a dellu attaqué wu doo Ruum boobu Usaama fukki at ak juróom-ñett la am ngalawaay tey jii suñuy julli ci jàkka ji tey daan basket bi fees dell ndax ay doomi chrétien lañu wala juif quatre-vingt-dix-neuf pour cent si di musulman jàpp nañu ñoom jaamu yàlla bokkaguñ ci déedéet mbokk ñi taxawoon diina ji xeex ba mu ñëw fii ñu ci bëri ci ñoom ñu ngi doon tourné autour de vingt ans Usaama boobee dañuy gis ne moom la yonent bi mujj a jox drapeau l'islam lii mbokk julit bokk na ci wàllu jihad boobee kii di Abdurahman ibn Awf nee na damaa taxaw bi ñu yonent bi campé ci Badr nee na ma xool sama côté ndeyjoor gis benn jeune bu ndaw càmmooñ jeune bu ndaw man ah man sama position bi tey baaxul de waaye bu mujj kenn ko kabas ma ne ma saa bàyyi kan mooy abu jëhal ma ne ko mooy kële taxaw na leen di jaagar jaagari keneen ki góos ne ma saa bàyyi kan mooy abu jëhal ma ne ko mooy kële taxaw di jaagar jaagari avant may wàcc sama loxo dañoo mel na ñaari aigle mi ngi noonu ka saqran dañoo mel na ñaari aigle daw ma seen leen ñu daw xuus mbooloo mi xuus mbooloo mi ba cawandoo ko seen jaasi kenn ka ikrama dagg na loxoom ba teewul ñu daal di ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam biñ ñëwee woon ko seen i jaasi mu ne yéen ñaar ñépp ñoo ko rey ñaari ndaw ñoo rey firawna xeet bi nga xam ne ni moo sonaloon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolee ngeen bàyyi ci xel bu baax lii di wàllu xam-xam mbokk xoolal ki nga xam ne nii mooy imam Bukhari rahimahullah ba nga xamee ne nii toog na ak sëriñam ba di ishaq ibnu rahawiya ishaq boobu daal di ne aka neexoon am ku bindoon téere boo xam ne da cay jagleel rek la wér ci xadiis yonent bi buxaari ne loolee tappe sama xol booba 17 ans la am nee na fan yooyu ma tëdd gént gis yonent bi alayhi salaam toog ci min baram ay weñ di ñëw ma jël uppukaay di dàqi weñ yi bi ma xëyee wax ko sama sëriñ boobee mu ne ma yow mii day yaakaar naa yow yaay dàqal yonent bi mboolem hadis yi nga xam ne dañ ko koo sosal keroog la Buxaari commencé di dox di dajale saxiixul Buxaari fukki at ak juróom benn la ci def Buxaari dajale na cent mille hadis di ko segg di ko segg ba génn ci juróom-ñaari junni hadis muy téere boo xam ne nii umma bi dëppoo nañ ne gannaaw alxuraan mooy téere bi gën a wér ci kaw suuf benn jeune bu ñuy wax Buxaari moo ko bindoon ba baa ñuy ñëw Sénégal ay ñu ñuy tudde sëriñ seen bàyyi duufal leen kenn ki taxaw ne Buxaari ka ko doon jàngal fenkat la Buxaari dañ ko war a sànni poubelle ba keneen ka taxaw ne Buxaari ak muslim la ñuy wax la ci ëpp ay fen la boo ko wallahi wax la joo xam ne nii buñ ko waxoon ci dëkk yu bari bu subaa ñu dagg seeni bopp Sénégal nag muy diina joo xam ne bu yàlla ak yonent bi ak saxaaba yi lu la neex wax amma sëñ caam sëñ mbeng moom kenn du leen tudd waaye wallahi loolu ñu dóoral Buxaari mbokk Buxaari du moroomu kenn képp kuñ koy tëkkaleeg ci seen gannaaw li ma liggéeyal lislaam amul benn borom xam-xam gannaawam lu dul jëriñoo ñeen ci la nga xam ne mooy saxiixul Buxaari ay yéen ndawal jullit góorgóorlu leen xam leen ne benn royukaay ngeen am muy seen yonent muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu leen xool kenn ku dul moom gëstu leen sunnaam topp sunnaam wallahi ca ngeen di amee teddaanga adduna avant teddaanga alaxira fa lillahi al izza wa li rasulihi wa lil muminin ki am teddaange mooy yàlla ak yonent bi kan moo leen ñetteel ku nangoo topp yàlla ak yonent bi kese keneen ku dul moom mun loo am teddaanga ak même bu ko nit ñi tuddee teddaange góorgóorlu woon xam la la nga xam ne mooy seen priorité mooy fexe ba am ngërëmal yàlla bu ngeen dee faggu alal na dagan li dagan ca tey mooy li barkeel cent mille francs yu yàlla barkeel yemul ak un million cinq cent yu yàlla barkeelul sax leen ci zikrullah wéet ak seen baroom wékku ci yàlla di ñaan yàlla fu ngeen toll di sukkandiku yàlla fu ngeen toll di ñaan yàlla fu ngeen toll lii de bu ngeen ko defee yàlla gàddul leen teraanga adduna ak teraanga àllaaxira yal na yàlla yéwénal ñu yéwénal suñuy ndaw yal na yàlla yéwénal suñuy ndaw ñu mel ne ndawi saxaaba ya yal na yàlla xamal leen seen diine yal na yàlla dundaloo leen seen diine yal na yàlla defal leen diine nekk seen priorité yal na yàlla boole leen ci jaam yi nga xam ne nii fu ñu mën a toll ña ngay woo ñeneen ngir ñu ànd ak ñoom jaamu yàlla yal na yàlla musal leen ci ñu bokk ci ñépp ñoo xam ne dañuy woote jëme ci ak réer allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fi al-akhirati hasana wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin